ki nga xamanteni moy Modou di doomi gox di l'adjoint au maire de la commune mom xam-xamam dafa nacc ci mbay bu mu mbay mi ba mbay mi avancé ba am ben dayo ci la dugg ci anamu jeen yi ci duggé aussi tamit bu ngeen xolé né gox ñu dafa lu ndox moo xamante ni mënees na fee yar ay jën ak yooyu amu fi moom mu maîtriser énergie solaire ñëw teg ko fi xëcc ndox yoo xamante ni dina jóge ci profondeur u 40 ba def lii loolu kooku wax dëgg yàlla euh, kooku li muy def am na solo. daanaka boo xoolee bi ñu commencé ak léegi defagul na ci ñeent fukki millions te ndaw yi fi liggéey daanaka toll nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñaar te ndaw yooyu yëpp dañuy yokk. kon loolu wax dëgg yàlla euh, kooku bu président waxee PSE moom commencé na ko déjà ci goxam. tey dañu ñëw fii Xombol Ndiarène Sira si toolu ku ñuy wax Modou Thiaw Modou Thiaw nag dafa nekk koo xam day yëngatu ci agriculture day béy ak yëpp mais dafa dem ba ci biir mu mu mu jàngat ah mbéy mi de mën naa ci yokk yarum jën mu tax mu defoon benn bassin yokkaat ñaar ba ñett tey mu ngi defaat bassin yu nga mag. donc tay mu ngi am tool bu mag même bu dee bassin yi nekk ñu ci benn côté loolu nag ñu ngi ciy féliciter monsieur Thiaw parce que bu mu ci jógee tam xaaru ci état dafa jël ay moyens def ay bassin uti ay jën uti ay aliments di def liggéeyam donc fu may waxee nii mu ngi commandé aliment bu war a jóge bitim réew pour mën a vraiment def yaru jën bu baax fu mu nekk nii am na jën yi nga xam ne yar nañ leen ba ëpp na ay 2 kilos dinañ fay dem léegi ngeen gis ko donc moom jàmbaar la ci loolu ñu ngi ñu ngi ko ciy féliciter donc ñëw bi tam dafa am solo parce que lii ñuy wone si monsieur Thiaw dafa di loo xam ne dafa am solo ci Sénégal yi nga xam ne bëgg nañ def euh, entreprise économique maanaam bëgg nañu ut activité économique muy jeunes yu nga xam ne dañu am diplôme liggéey gu ñu bëgg dafay projet bu ñeneen ñi nga xam ne dañu am ay tool wala ñu am ay projet xool fan moo rentable pour ñu mën fa investir te ñu xam ne jën tamit dafa jar Sénégal ak monde entier bi yëpp boo ko yaayee ni nga ko waree yaree vraiment di nga ci génn bu baax donc solo bi mooy dañu bëgg woon nit yi aussi aquaculture nit yi mën nañ ci investir vraiment am ci koom-koom bu baax a baax apport bi xaw naa neewagum mais nu ma gisee nguur gi nu mu ci taxawee fan yi ak mesures yu bees yu mu ciy jël vraiment buñ ci ànd ak secteur privé bi koom-koom bi feeg ay at dinañ mën a dina mën a def dina mën a am solo lool pour sénégal yi. ci wàllu koom-koom njëriñu aquaculture euh, bëri na parce que ci plan Sénégal émergent nguur gi dafa ne man dama bëgg ci 10 ans war nañu. Euh, ya def yar jeun bo xamne ne dina indi lu upp euh, lu mat 10 pour euh, ci lu ñuy am ci nap manam xam nga nap mi legi yokotul te nit yi dañuy yok di soxla jeun donc il faut ñuy ut fu ñuy jëlé jeun bi nga xamne ne day gëna yok ci lek sénégalais yi parce que sénégalais yi lu ci upp ci ferñeent bu ñuy wax protéine ci jeun lañ koy jëlé tay ñum fi indi jeun bu ñuy wax tilapia moy Was was bo xamne ne dundu ci nox mu lewet donc mom lañuy indi promoteur bi indi ko fukki Juni, ak Fuku, fukk jën yu ndaw yoo xam ne ay 10 grammes pour que mu yar ko après fii ak 6 mois dina war a mat jën boo xam ne mën nañ ko jaay pour lekk euh, bu dul loolu tam promoteur bi mu ngi yar jën bu ñuy wax yas clair yas clair yas mooy bu ñuy wax bu ñuy defee géej yas jigéen ñi xam nañ ko bu baax géej yas ñu def ci ceeb ceebu keccex te jën boobu tam mën nañ koo lakk comme kong la parce que kong la mais kong kuy dugg si kong bu nga xam ne si ndox bu lewet lay dund donc euh, ñaari jën yooyu lañ fi indi.